ndax actuellement euh, gis nañ ni nit ñëw nañ bu baax a baax maye si deret waaw bu baax a baax sax maye si nañ deret euh, kon remercier nañ ko te ñu ngi ci ba léegi nii waaw képp koo xam ne daal mu ñuy dégg euh, bu mënee ñëw maye si deret na ñëw maye ndax bu mayee sauvé na dina sauvé vie incha allah. dara guñu ndax yàlla def na ne am nañ capacité bu ñu mën a stocké sang bi moo tax actuellement ñu ngi jël mais nag xamuñ fu to fuñ fu mën a toll ndax bu nekkee nit ñi ko nen di ñëw tamit loolu mën mais. duñ wax kenn mu ñàkk a ñëw ndax euh, lu mun a ñëw rek mën nañ ko jël parce que gars yi soxla nañ sang bi te bu ñëwee ñun incha allah rabi dinañ ko mën a conserver ba gars yi utiliser ko incha allah. jot nañ seen bilan d' analyse def nañ ko jot nañ ay demande de sang tamit loolu tamit ñu ngi koy traité mais côté ñoom seen seen seen cas ñoom xamuñ ci dara ndax loolu service yi ñoo koy gérer ah bon demande bi dina bari parce que ku nekk bloc par force dinañ prévoir poche de sang ak ñi accident rek ñu xam ne accident ku dégg accident di nga xalaat hémorragie accident bu amé hémorragie am foog demande sans sox bëri waaw motax tax nag moo appel bi sax ndax appel bi ñu koy lancer moy ñu indi deret bu bëri pour mun ko conserver fi au cas où gaay yi dugg bloc soxla sang jël ko ak ñi nga xamanteni ni soxla nañ sang dans l'immédiat ñu jël ko. jafé euh, jafé amagu ci wax dëgg neex yàlla parce que gis nañ am ñu bëri ñoo xamanteni ñoo nañ soutenir ñu ci côté ay euh, collation parce que gaay yi may deret bu ñu leen jox ay boisson ay ndox ay euh, biscrème yoy non mais gis nañ ñu bëri ci biir dëkk bi taxaw nañ wax dëgg neex yàlla def ay dons. pour jàppale ñu ci côté boobu noonu. côté test yi tamit euh, yàlla def na ne hôpital bi tamit góorgóorlu na ci bu baax ci poche à sang yi ci test yi ñuy def yëpp pour mën a tax affaire bi yemb waaw loolu moom wax dëgg na yàlla sant yàlla.